man am naa gël ndaa awma soxna hmm. waaw léegi yow sa sa gel ñaati at ngeen def ma xool def nañ normalement trois ans trois ans waaw looy xaar si takku ko man ah damay xaar damay dama koy seetlu chaque jour daal maa ngi koy seetlu ndaxte nit bay wut jabar bul ko wutal sa bopp wutal ko ñi nga dëkkal ak sa xarit ak say mbokk yi ndax dina mën a dundoo ak ñoom waaw soo amee jabar it te mu mën mu yem ci yow kese loolu du jabar te gérer rek mënul tax mu doon sa jabar il faut nga seetlu ko waaw su la bëggee te bëggul sa mbokk it loolu pour man daal loolu doxul daal pour man. kon yéen seen cosaan jabar bi du yow yaa koy takk yow rek. déedéet nan lay demee. soo gisee bëgg di dem ci sa waay say waajur nga ne ko ah man gis naa jabar mu ne la fu mu dëkk nga wax ko lan mooy cosaanam lan mooy xeetam. nga wax su su ngeen mënee an xam nañ suñ mën am an xam nañ léegi suñ su ngeen mënee an ñu kompaloo ñew ñaan ci ko ci papam comme ñu ñew ñaan ko papam ni la may na len ba mayuma len ñu ne gën suñu fofu la jappé tak bi nga ñew tak def li ngay def mu sey ci eh, yo ki ngay andal ni 3 ans moy nek sa soxna wala du nek sa soxna non fofu mo nek sama soxna nak ah lu tax non dam am ci li mu nekk ci ma ni daa am ci li mu nekk mënuñoo xaarante man dama yàkkamte tu ne ne yàkkamte wut ah kon yow fooye ko rek moo la tax a jóg koy fi mu ne man non du fay rek ndaa nañ ne naa xam ne daal am naa daal comme ñi sama morom di amee rek eh, ndax dama ñu bës ñoo sax dara moom déet waay bilaay wallaay ñetti at ñetti at ah yow xale bu am ñaa ngi yaa Man, ci ñaati at man normalement ay 23 ans 24 ans ah loo expliqué ñu waaye ñu comprendre